asalaamualeykum askan wi ñu di leen di dalal fii à Block TV Gambia si xibaar yu ñu leen dee baaxoo di indil saa su nekk fii Block TV Gambia with man Mariam Ceesay tey nag si xibaar yi nag ah, lu ñuy waxtaanee mooy lakk bi nga xamante ne moom mooy xew Brikama Brikama a ah, dañ am lakk bu mag bi nga xamante ne moom lañ am si seen marché bi suñ naataangoo yi nag demoon nañ nag ah, waxtaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo victimes yi ak ñi ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ŋànka Brikama area council duñ def dara nag dañoo dem rek seeti loolu dellusiwaat bu suñ naataangooy demee nag waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo am tiixa tiixa wala ñaawteef boobu bi nga xamante ne moom moo am biir kaama ñii nga xamante ne nag ñoom it ñoo nekk victimes yi maanaam ñoo amoon nag ah, yaaxu-yaxutee boobu noonu ah, dafa am nag victimes yu doon wax ne ñoom nag am ah, nañ leen métti am nañ lu leen beeta ñu ne nag ñoom ñu ngi amoon balot yi ees yi nga xamante ne yére moo fa nekkoon waaye balot yi yëpp dañ mujjee lakkate balot yi ibewuñ ko sax sakantuma di fa jël leena loolu na nekk na li nga xamante ne nag yaaxu-yaaxu la si ñoom Um, dafa am tamit benn seede bi nga xamante ne moom it dafa tombé nag bu safara bi daal di taale foofu noonu mu ne ñoom nag ah, bu safara bi daal di taalee fi nga xamante ne mooy Brikama si marché bi jéego yuñ jël nag lu dul dara lu dul ah, kool ñi nga xamante ne nag mooy ah, Brikama fire service buñ leen koolee nag ñoom dañ leen wax ne seen moto bi dafa am problème buñ waxee ne seen moto bi dafa am problème seen xel demut fen lu dul kool fire service bi nga xamante ne nag moo a fii nga xamante ne mooy Jochistan ñoom ñu leen koolee nag amaana sax amoon nañ yaakaar na ñooñu dinañ ñëw te ñooñu suñ ñëwoon sax amaana safara bi du am doole noonu waaye buñ leen koolee ñoom itamit lu ñu leen wax ne mooy am nañ ndox waaye ndox bu buñ amee nag boobu a ah, du mun a fay safara bu rëy boobu loolu bu amoon foofu nga xamante ne mooy birkaama bi marque bi euh, euh, plate number bi euh, mooy BJL 38 36 BJL 38 36 mooy plate number ji mooy plate number moto bi waaye da gis ne tey bi li xàppu ne euh, moto bi daanaka mën nañu ne marché biir Kambi bi yëpp mënoon naay lakkat because mu ngi ci diggante ñaari essencerie mu ngi ci diggante ñaari banque nga gis ne loolu dafa nekk loo xam ne daw na yaram loolu métti na lool bi lii ne sëp drive bi ci boppam dañ ko wane ko taawal sa moto baa waaye drive bi nangu la taaw mais dafa daw a daw ba ci boori essence bi ci boori banque bi foofu la taxawee foofu la moto bi commencé taal moto bi nag bi mu tàkkee yaakaar na jël na lu hour time nit ñu ko bëgg a fay mënuñu ko fexe ba fay wante nag li ma bëgg bileem li ma bëgg a mooy maa ñaan Gambie government pour ñu jàppale fayasa bi because bi ñu demee ci biir kaama fayasa bi buñ demee nag gaay wax nañ ak ki nga xamante ne mooy chairman of Brikama moom nag lu mu wax gaay mooy gis na safara moom nag dégg na nit ñi di yuuxu safara la waaye mënul ta wax ne ndax kuura na ko indi wala kuura na indiwut ko waaye nag ñoom nag dinañ gestuwaat lu waral safara bi te dinañ def i jéego yu mut yi nga xamante ne ah, lu mel ni du amaat foofu nga xamante ne mooy Brikama chairman bi tamit nag ah, si i kaadum gaaral na ne ah, fësal na i kaadum ne dinañ jàppale ñi nga xamante ne nag ñooy victimes yi maanaam ñoom ñoo am nag yàqute yàqute noonu foofu nga xamante ne mooy Brikama xamante ne nag mooy à kootu à faya service bu ñu leen koolee ñoom ñoo ñëw mujjee fay li nga xamante ne mooy safara boobu looloo waral nag à safara bi nag daal di am doole askan bi nag yéen a yéen a gis li nga xamante ne nag moom moo dal waa Brikama ñuy masawu gaay te di ñaan nag yàlla lu mel ni bu mu fi amaat jërë ngeen jëf si seen tope boo leen dee topp Block TV Gambia sakantuma xibaar yi jaa ngeen jëf ñu di leen di jox nag dig daje ba beneen yoon fii si biir bi ak lépp li nga xamante ne nag lëmbe na réew mi ñu indi leen ko fii si xibaar yi fii Block TV Gambia ak man Mariam Cissé jërë ngeen jëf